Rewmi 24 TV. ak jàmm ci xibaar samedi 28 octobre mu mel ne jamono yi Kër Massar. ma ngay e tàng jiir ndaw ñi rek ñoo fipp commencé rek di woote benn revolution boo xamante ne daal dina eh, jaaxal ñu bari ndax rek li ñu bëgg mooy ñu libéré ñi nga xamante ne ñooy détenu politique yi surtout ki nga xamante rek mooy Ousmane Sonko kon daal ci samedi bi fii ñuy wax ak yéen yi eh, minuit rek moo ngi waaj jot mais ndaw ñi moom ña nga génn rek baare mbedd ya jàkkaarloo ak force de l'ordre ya ngir rek ñu mën a libéré détenu politique yi tombé ak samedi 28 octobre mu mel ne rek jamono yi kon fitna mu ngi neew ci Sénégal ndax bu ñu xoolee rek jamono yi yëpp manifestation nga jot naa am waaye mi ngi tàmbali di raam ndànk kon bu ñu xoolee daal département Kër Massar kon tey jii seen maire boobu sax di Bilal Diatta ñu arrêté ko mu toll ci diir ba ay weeri weer yoo xam ne rek ma nga ca prison ba fii mu toll ni kon Kër Massar daal ma ngay boy ndaw ñi rek fipp nañu di sàkku rek ñu libéré euh, bépp détenu politique